assalamualaikum gay salam salaamaaleykum gars ku wax nak ngeen da bëgg bëss wala da bëgg li motax muy wax vidéo bi légui la ko euh mami Cobra la xaw ma xaw ma vozo. jël xottu tatam yi di yëkëti dof bay bëgg dé dof de bu la taxé waré sa lëf li ci biti wala say tat ci biti loolu sa affaire la xol leen bu baax xol leen bu baax vidéo bi li ngeen yaakaar ne rafet na ci magum jëm mu toll la yow jàpp say tat di ñori di visé di dem ba non mais li dafa ñaaw buñ waxé ñu né wa Adama nangam baxna <laughs> Who's that man that said? Ah! Wait!